Cheikh Ali al Xudayfi ربما amna ci yéen sax ñakul ñan ñuko gis nak vidéo bi mi ngi ci internet bi ben bis kabar na ci al masjid masjidun nabi sallallahu alayhi wasallam def defe naa ba jotta jàng fatiha bam jeex mu ne leen xaar leen jàng fatiha bam jeex ne xaar leen daal di dugg ci bir jappat dik continue lol nak jaaxal ñu bare bare bare ñu ne waaw kuy julli kay liñ xam mooy boo yëgee ne yow mi jàppoo bay jàppiwaat danga war a wuutal kenn ñu ne lu tax wuutalul kenn foofa bis booba borom bi tabaraka wa taala dafa dogal imaam yi nga xam ne ñooy julli ci gannaawam nga xam ne ay ñooy imaamu al masjid an nabawi kenn teewul ca bis booba ku dul moom dëgg la ñi ci gannaaw ña fa mën a julli man faa jiite kenn xamul nu mu toll waaye nag nekk imaam ci al masjid an nabawi du noonu maanaam du caagi di ko jot rek ñoo di ne ko kaay julli mënut a demee noonu imaam ji dañ koy tànn tànniin yu xóot yoo xam ne boroom xam-xam ñooy daje di ko gëstu di seet ay mbiram ba ne kii mën naa doon imaam ñu bind ci moom mbind yónnee ko ca fa gën a kawe ca réew ma ci wàllu xam-xam ñooña xool wëlbati laajaat ba ne ah waaw kon de loolu mën naa nekk ñu door koo yëkkati nag yónnee ko fa ñu tudde diiwaanul malaki nga xam ne nag buur baa ca des bu xoolee bu ko soobee mu signé ne waaw kon na nekk imaam bu ko soobee mu ne ah seet leen formalité yu gudd yooyu moo tax amul benn imaam bu am droit sañ a jékki-jékki ñëw fekk mbooloo mi nii rek mu ne moom jamono dikkal na ko mu ne sëñ diw sangam kaay julli man man ma dem sañu ko bu ko defoon problème yi mag mën na ko caa fekk lu tax ngay jiitaloo nit ci almasjidu nabawi te kooku xamoo ku mu doon ndax liy julli ci sa gannaaw kenn xam nu mu toll te amaana waa ji am na ñu ko xam am ci moom yoo xam ne kenn ku ne xam ne ne mënut a jiite soxnaam sax waxuma la di jiite xeetu lislaam daanaka kon loolu la cheikh boobu def ci bis boobu ñi ko xamul ñu ne daa juum ñu ne amul fiq ñu ne kii dafa déggul affaire yi fekk am na ay mbir yi ñuy tudde siyaasa charia yoo xam ne boo ko xamul sooy bo rek soo lam cheikh bi dafa am benn euh, vidéo boo xam ne al imaam al xudayfi moo doon euh, jiite ca jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kabbar daggar kabbar gi ne leen xaar leen ma mu indi coow ci ñenn ñi nekk ci réseau yi rek fa yàlla def tamit euh, am dars boo doon jàngale nga wax ci ni loolu noonu fiq bu sori la ci siyaasa siyaasa la bokk loolu tamit euh, amaat yenn donga wala sax xëy na mën na leen mën a donga waaye ñenn ñuy doog a tàmbali di gëstu ci xam-xam ñoom it euh, di ki coow ñu buggoon leeral boo xam ne daal bu leer naññi lay doon ci masala boobu alhamdulilah dëgg la noonu yi nga ko waxee Cheikh al noonu la ko defee taxawal nañ julli gi euh, mu kabbar kabaru armal daal dina xaar leen na une minute génn dem ba ne suuti mu dellu siwaat door a kabaraat continuer julli bi loolee ba mu amee léegi mat na fukki at ci gannaaw doon nañ jàngale ab dars ci loo xam ne jege na wala ëpp na sax yetti at ci gannaaw ba agsi ci joxe misaal ci siyaasa sharciya e, wax ca ne léeg-léeg nit mën naa def loo xam ne dëgg la mën naa sax ci shariatul islam sax ci geneen wet waaye siyaasa sharciya di ciy am ak wàll ma wax ne xew-xew boobu ba xewee ci ay jamonoom ci mennum ndaje moo xam ne kenn ci imaam yi al masjidu nabawi xëy na ba ma koy jàngale ci darsu ba sax àgguma ci li may wax nii waaye kenn imaam ci imaam yi ci lañ jëlee xabaarub ne bokk na ci li taxoon Cheikh al-Xudaybi bis boobee wutalul kenn mooy yenn imaam ci imaam yi ñu fal ngir mu jiite ci almasjidu nabawi wala almasjidu alxaram dafa fekkul mu nekk ci ginnaawam loolu nag néew na muy am waaye bis booba loolu la yàlla dogal kooku mu ne loolu moo tax wutalut te loolu ci loolu leeral eh, fal ci alxaramayn yi ngir mu jiite formalité yi nga xam ne ci lay jaar lool door a am ci laa wane ne nekkut sañ-sañu jenn imaam muy jiite kooku ba mu yàgg mu jékki-jékki jiital ko neex loola nag bi mu amee ñu bari dañ koo déggee ne man ab fatwa laa def muy wane ne loolu man na rek wala mënta nekk ala kulli xaal léeg-léeg nit ki dana mel noo xam ne day am ay doomi aadama yoo xam ne dañ koy ñambali noonu laa ko mën a tuddee yoo ne li ñuy séntu daal mooy na wax kàddu rek bañ mën caa wax sawar ca lool nag xaw ma nag lu tax waaye li may wax fii rek te di ko faral di wax mooy ndaw ñi nañuy dem jàngi nañu dem jàngi xam-xam réseaux sociaux yi dañuy réeral nit ndax ñu fiy daje di werante ku ci jub aw làmmiñ wala nga mën a wax wala ngay wax sax juróomi nit wala fukk di la déglu da ngay dem ba mu yàgg nga waru defe ne fu nekk sañ nga faa wax li ñuy tudde taalum te Cheikh Bakar Abou Zeydi rahmatullahi taala bind ci ab téere di ko ak taalum taalum muy xam-xamlu su ma ko doon jegeel damay wax ne mooy eh, cuuj buy jéem a sab njël sab njël ci ak séq gu mat dañ ko xamee waaye bu fekkee cuuj ya dañoo dégg séq ya di sab ñuy jéem a sab sab ga du dem fenn lii su ko dégg te du am xorom moo tax ndaw ñi nañ jàngi xam-xam bala ñoo artu mag mi ak di wax ni lii wérut vidéo boobee gis naa fu nekk bind nañ ko fa ne ñii ne di wax de moom wérut lii de moom charia al islami lii moom amu ci ñii ne kii de moom juum na ñoom te loo ne lu la neex rek ñu waxee ko noonu ala kulli xaal euh, noonu ubbeewuñ woon ca vidéo boobee ñu seetaanoon waaye danoo xibaar bi nga xam ne moom lañ ñu joxe woon nu waxe ci ci ci wetu siyaasa charia siyaasa charia nag ak xam-xamu diine la boo xam ne ci diine lislaam bi ci la cosaanoo boo jàngoon Omar ibn Xattaab radiallahu taala anhu ak sax ñu ko jiitu am nañ misaal yu bëree bëri tàmbale ko ci yonente ba ci Abu Bakar waaye ci Omar ibn Xattaab ci la gën a féete nag ci jamonoy atteen mu jëfandikoo yu bëri yoo xam ne siyaasa charia la loo xam ne boo ko dee xool da ngay jàpp ne lii daa fekk ab atte boo xam ne mooy bañ nii noonu mu indi beneen boo xam ne day nóoru ne bokkul ak booba waaye day fekk ne am na ay dawaabit ak qawaid muy ay régal yoo xam ne ca la tënku yoo xam ne ca la koy sañe su loolu weesoo itam daal di weesu lu bare ci mbokk yi dañuy wax ne rek ñoom buñ gisee luñ mos a ne lii de man mosuma koo gis te jàpp a gis day mel ne wéru waaw yow ba nit ñuy jàngi damoo jàngi bu amee loo mos a gis wala mosoo koo dégg doo laaj dangay ngay jékki rek ne man lii mosuma koo dégg kon wéru kon ma ne loola du woon ab fatwa su fekkee dañ koy ubbee nag dañuy wax ne loolee mu def lu dagan la lu dagan la ci toolam moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko al imam al buxaari ci téere bi ñuy wax saxiixul buxaari nee na baabun ida dakara fi lmasjidi annahu junubun yaxruju kama huwa wala yatayammam nee na su fekkee nit ka moo xam imaam ja la wala maamum la nekk na ci biir jàkka ba mu yàgg mu fàttaliku ne moom mii dafa yore janaaba maanaam bu la neexee nga ne dafa tojle moo xam yor na janaaba moo xam dafa jàppul woon wala am jàppam dafa toj nee na yaxruju kama huwa day daal di génn ca biir julli nga moo xam nag imaam la moo xam maamum la yam yatayamam waaye nag du tiim maanaam day dem sangu ci bi mu indee bunt boobu ba àggal mu indi xadis boo xam ne da ko isnaad ba ci abu hurayra radiallahu taala anhu mu ne uqimat as-salaatu fa sawwa an-naasu sufufahum فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم mais dañoo taxawal julli ga bis ñu jekkal sàppe yi ba jekk ba dara desulul kabbar yonente bi salallahu alayhi wa sallam fàttali ko ne moom kat nekk dafa yore janaaba mu ne xaar leen daal di dem sangu nga xam ne di génnaat ba muy génn nee na bopp baa ngay toq am ndox nee na mu dikk daal di kàbbar daal di julli lii yonent bi sallallahu alayhi wa def na ko Cheikh Ali al-Xudayfi xafidahullah moom la def nit la koo xam ne boroomu xam la nit ku xam ci maandu la ku ñu xam ci tée aw làmmiñam la ku xam ci bari ak jaamu yàlla lool la ku xam ci yàgg ci jiite jàkk yonente bi salallahu alayhi wa sallam la su demul ci ñeen fukki at fanweer moom ëpp na ko kon mooy kabiru aimatil masjidi nabawi ñay jiite jàkk yonente bi salallahu alayhi wa sallam bis ni ko tey mooy yilimaan ju mag ja kon nag kooka aw jëfiinam doonut loo xam ne ay picc ramb toog ay picc wala ndoo ñooy jóg di taxaw naan kii li mu def lu nii kii dafa juum kii li mu def bokku ci lislaam kii nangam kii nangam ndax miinuma ko ndax jànguma ko déedéet du noonu wallahu taala aalam bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin euh, vidéo bii ñu teg sunu loxo euh, docteur Ahmad Lo xafisahullah wa raa mu mel ne da ci doon leeral masala bi nga xam ne fan yii doon nañ ko gis mu nekk euh, benn peeñ boo xam ne da doon wër ak vidéo mu mel ne daa ñëw ngir leeral ko ginnaaw buñ ko ci laaje yalla sa borom dooli ko dooli ko wér man nak setlu na ci ay setlu yalla nak mo xam setlu bu njëkk bi bari wut lu may gis docteur mo waxin wax ju melni ndax dafa melni fi mom da xawa mer waaw nah, lol de nañ ci setlu wax deug yalla ndax na vidéo eh, bi niñ ko partager né nañ xamul di ci wax xas na leen nee na ay cuuj ñoo xam ne ay cuuj lañu euh, bëgg a joxe misaal rek maam ñu xamul dara ci diine nee na acca nañ dem jàngi euh, moom daal tabarkaal la dal na seen kaw nee na tamit gis na gis na ne fu ne partagé nañu ko fa ñu xam ak ñu xamul ñëpp di ci wax euh, mu mel ne loolu daal daa mel ne taxut mu neex ko dafa mel ne xaw na cee mer te daa mel ne bokk na ci li ñuy tere ci kuy ubbee jamono ji nga nga nga mer ndax boo meree dana tax waral nga jaxase te daa mel ne meram mii nag yóbbul na ko mu jaxase yu bari ci liñ gis moom daa mer te loolu nag bariwut luñ koy gis ndax wax dëgg teey ak dal ak it sax bu fekkee dañ koo ay dañoo ci ay wax wala nangam te ña ko def wax dëgg di ñu xamut isa xaatabahumul jaahiluuna xaalu saa asalaama loolu da ngay ñëw rek yàlla mënoo nekk nag di tontoon rek ñoom ak di leen dal seen kaw Euh, lu ko tuddee leen ko jàpp naa du am solo bu fekkoon nag dañ cee waxee xam-xam mën naa ñëw indi xam-xam kon daal euh, fii moom taxul ñu xàmmee ko fi lool ci ni mu waxee daal danañ koy déglu waaye bariwut nag waxam ju mel nii nga xam ne xaw naa tàng xaw na cee mer mel na ne ñaareel bi mooy daa mel ne mer mim ci mer moo ko yóbbee mu jaxase yu bari ndax yaar la bëggoon a leeral daanaka rek waaye ñaar yépp benn benn mujj ca leer yëpp daanaka da koo da koo fara jaxase daanaka euh, bu njëkk bi doon na jéem a leeral lim lim njëkkoon a tudd ca vidéo bu njëkk ba ne fiqhu siyaas yi waaye daa mel ne moom it soriwu ca ndax nee na yonante bi sallallahu alayhi def na ko Seydina Omar def na ko ay waaye ba léegi indiwu ci génn niral indiwut benn misaal ne fii def na ko fi ak nangam ñaarale ba tamit ñooñu Seydina Omar loolu mu doon def euh, nga xam ne léeg-léeg dara xew lañ ca xamoon mu mel ne daa soppi atte bi ngir jubloo yar nit ñi lu mel ne fase eh, ak lu mel ne idda yu bare bare ci bu Malik daanaka dañ koy jëli Seydina Omar te loolu ab diggante lay doon yoo xam ne doon yar nit ñi xam nga loolu day dellu ci diine maanaam Seydina Omar day génne dara loo xam ne ngir defar ak yàqute nit ñi fi mu toll ak ngir dëppaleeg jamono la ci jublu ngir ab benn tolluwaay kooku lépp day dellu ci diine waaye nag lim njëkkoon a wax ci vidéo bu njëkk bi nga xam ne nee na bu ñuy tànn imaam ji ay boroom xam-xam ñoo koy tànn xam nga loolu war naa doy bu fekkee ci diina la ñuy dox mu ne boroom xam-xam bu ñu tànnee boroom dañ koy jox kuréel ga gën a mag ci yeneen boroom xam-xam yi ñooña tànn ba ne kii de seet nañ seetaat waaye gis nañ ne doy na xam nga loolu bu dee diine rek foofu la war a yem waaye neen dañ koy jox buur ba bu ko neexee mu wéyal ko bu ko neexul mu ne ah kii daal seeti leen keneen waaw may laaj loolu fu mu nekk fiqhu siyaasi ci lislaam lii fan la ko lislaam di jàngale ab buur ay worom xam-xam jàng tànn ba noppi yow nga ñëw dàq kooka foo ko teg fu mu teg lii moom wax dëgg yàlla mënee su koo layal ca dëgg-dëgg bu dëgg rek mënee su koo layal kon kenn du jël lii di ko gam-gam leeg eh, nit ñu baax ñu ñoom lañ defoon nga xam ne ngir aar diine yooyu rek lañ ci jublu woon eh, nurawut moo tax wax dëgg foofa tontu yam ci indi daanaka sax mënees naa wax ne tontu wu ca daanaka daane rek ko jàng kii rawatina Seydina Omar ay taxawaay yu bari re daal di daal di jàll benen tom bim mu bëggoon a leeral te yalla dogal na leerut te lima ma moy xaw ge mer bokk na ca ci sama gis-gis bop moy jimmi masala bi ndax neena bam ci njëkkee wax booba defutoon fatwa booba dafa dafa waxtaan daa jangale ba aksi ci mu jël ko comme niral rek manam exemple waaye bi nak daa ñew moom ngir tontu dane bu dee masala bi daa di ñëw ngir tontu la ca njëkk a kiimaane mooy dane yonante bi sallallahu alayhi wasallam li imam ji def yonante bi def nako ah ñu diko deglu ngir mu andi ñu yonante bi fu mu ko defee mu nettali ñu loo xam ne wax dëgg yàlla euh, jotewut ak dara ci masala bi ndax masala mi moom ab imaam la boo xam ne dafa dugg ba ci biir ak julli te man vidéo bi ma seetaan dafa mel ne ku toog imaam ji daa mel daa toog man damaa defoon sax day xaar leen tuuti daqiqa intaziru daqiqa mu ne yonent def na ko maanaam docteur moo ko wax ay kàddum laay nettali mu ne lii imaam ji def yonent bi def na ko ñu di ko ngir mu andi ñu fu ko yonante bi def moo ne yonante bi sallallahu alayhi euh, defar na sàppe yi ba ñuy waaj a taxawal julli gi moom it am na janaba mu doog a fàttali ko janaba doog a génn ñaari luñ jotee la nga wax dëgg yàlla kee nekk ci biir ak julli ba mu yàgg mu dagg julli ga ak kii nga xam ne euh, dañoo dañ doon waaja taxawal julli gi waaw lool lu mu wute moom mu jël misaal mais andi ko ci bii ba tey kon foofu ak njaxas ak njaxas am na ci wax dëgg yàlla kon lim doon bëgg a leeral damaa xamut waaye daal daa mel ne juumaan na ci wax dëgg yàlla euh, juumaan na ci wax dëgg yàlla ba léegi ba léegi leerut ba ca tege mooy euh, vidéo bu njëkk bi ba tey amaan na njum ndax vidéo bu njëkk bi docteur dafa waxoon ne imaam ji bi mu daggee julli gi ne xaar leen tuuti dafa dem jàpp jiwaat ñëw àggale julli gi loolu nag damaa defee ne xëy na njuumte la rek xëy na daa bëgg a wax ne mu ñëwaat ñu tàmbaliwaat julli gi ndax julli gi jëpp mu ne mën nañu koo àggale ah, baat boobu xëy na da koo rëcc kon xëy na da koo rëcc waaye fi ma koy tëjee mooy ah koo xam ne foo toll yaa ngi woote ne da ngay woo nit ñi ngir ñu dellu ca jëfi salaf jëfi salaf mooy nga xam ne sax léeg-léeg nga ne leen boroom xam-xam nangam ñu la ah, hadis bi nga ne foo toll yow da nga naan nañ dellu ci sunna nañ dellu ci nu ko saxaaba yi defee woon koko de damaa defee ne masala mo mel bo bu waro nañu nañoo delluwaat sahaba ya ndax comme mom bi ca lañu ñu jëm ci ta buñ ca dellu won atte bi day daal di leer umar ibn al-khattab ak sayyidna Ali ku ci nek lu melni moy julli bam yag nga am ngant dal na la ta bam la dalé da nga wotal wa lu ñu fofu comme salaf kay wax dëgg ñoy ñooy waya ta waxtu wu jot dañuy wo ngir ñu delu ci salaf lutax tay ñu baña ci salaf di lijjanti yenen Seydina Omar ibnul Xataab ci asahihul Buxaari yi biñ ko jamee nu mu def xam nga jam moo gën a metti dafa wuutal Abdurahman ibnu Awf léegi lu tax masalim yi attewuñ ko noonu ni Seydina Omar defoon Seydina Ali ibnu Abi Taalib nee ñu julli ne ba mu yàgg muy bori bori xam nga bori moo gën a jàppandi mën ngaa génn raxas ko waaye dafa dafa jàpp loxo benn waaye xëcc ko mu jiite waaye léegi lan moo tax tey ñu ci salaf waaw lan moo tax tey jéemu ñoo dem xooli xadiis yi lu tax rek ñu bëgg ñu koo àtteel beneen àtte boo xam ne bokkut ak salaf moom nañ ko doxale woon waaw moom ab laaj la euh, waxuñu ko nag ngir euh, jublu dara waaye daal day mel ne euh, liñ bëggoon a leeral day mel ne rek dafa gën ak lënt la gën a andiwaat allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mu ci tawadirul murid ñu ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi eh, abdullah hat ñang ak eh, serigne ma ñang momu nga xamni ni duggal dugal audio boobu di eh, bu serigne aline badara ndjay di dam sunu saut ak sunu raayu ci seen ara yoy ñu wax ci naqd Euh, taamul euh, Cheikh Mouhamad Ahmad Lo ci masalam Xuseyfi moomu di wane sunu muwaafaqa ak ñoom ñaar ñii ci liñ ci wax euh, bi nisbati mi atin bilmiya li ñu ci dolli rek mooy wàllu siyaasa charia moom dafa amul benn daxal wenn anam gu mu a dugge ci biir julli gi amut aslan siyaasa sharciya moom daiman takunu fi islaahi raaci wa raaciya comme ni ko ibnu taymiya waxe ca téeréem boobu mu tudde as siyaasatu sharciya fi islaahi raaci wa raaciya foofa la as siyaasa sharciya di dugg ama duxulu as siyaasa sharciya بين آه، تكبيرة الإحرام والسلام تبير جلي لولا مسومكو ديغ فن مسومكو يرفن فن جابو ماني سخ كن مسنا تاوخ بير جلي موم سياسة شرعية أمو تبن نجرين أمو فسخ لا دخل لها في الصلاة أصلا السياسة الشرعية تكون في إصلاح الراعي والرعية أو فيما يصلح الراعي والرعية ويصلح ما بين الراعي والرعية العلماء السياسة الشرعية آه، أما آه، إصلاح الصلاة لولا لا دخل أصلا للسياسة الشرعية فيها لولا منول نك نجوم تلا تي آه، اك تهويل تهويل سخلا كوي جابي Euh, jël lu garaaw loo xam ni euh, masala moo xam ni du masala yi dara mën nañu ne ndax dafa leer nañ ci téere yi euh, ngir ñàkk am loo cay wax lu leer tax ngay jël xam-xam boo xam ni jàpp nga ni dafa tumuranke ci ñu baree bari xamuñu ko nga jël ko bëgg ne loola mooy lijjanti léeg-léeg bii fi am loolu aslan amu ci siyaasa charia amut benn yoon amut genn anam gu muy dugge ci yéwénal ci ci réparé julli amu ci aslan loola loola bokk ci te amu ci comme ni ñuy jële rek lu mel ni al maslaha al mursala di ko wàcce ci wàllu kurus ndax déggoon nañ ko mu waxoon ko fii ci ay jamono ci wàllu kurus ne euh, yore kurus mën nañ ko jàppe ci maslahal mursala loola it qataan njuumte la maslahal mursala laa daxala laha aslan ci wàllu kurus amul amut fenn fu mu duggee ci wàllu kurus kurus moom euh, ci yeneeni anam ak i texte nga koy àttee waaye maslahal mursala yoonam nekkul ci ŋàbbub kurus ak ñàkk ko ŋàbb amul benn alaaqa waaw njuumte la Euh, ci bëgg a ay atte ci yoo xam ne atte yu yu yomb la yu yu yu yu simple la yu leer la ci téere yi fiq yi donte euh, ci mubtadi uun yi sax waaye njuumte am ci kilifa juum euh, bëgg layal kilifa googu tax ngay jël yenn xeeti xam-xam yu yu bëgg ne xam-xam yooyu mooy lijjanti Eh, njuumteem gi mooy layal njuumteem gi loola ci boppam njuumte la siyaasa charia lijjantiwul julli gu yàqu lijjantiwul julli goo xam ni njuumte da ci am ñu bëgg koo réparer loola siyaasa charia lijjantiwu ko lijjantiwu ko loolu rek lañu amoon ci lu ñu ci taaliq di ñaan yàlla mu defal ñëpp tawfiix jërë ngeen jëf warahmatullahi wa barakaatu waa mbokki Kawaadir ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem mbokk yi nekk ci ëtt bi yëpp man de vidéo bi maa koy kii bi maa koy doog a koy doog diglu fatwa bi li ma njëkkoon a dégg rek mooy bee ca kaw diglu naa it lii Alioune Badara Ndiaye su ma juwoon la li tontu docteur maa ngi ay mbokk yu sàkku ne li daf cee war jot japp na ni audio jai Badara jay bi bu ci joto nit position bi du ko mom ndax bu doon ko man njëkkoon na ca addu ta xam naa ne signal yi Badara addu fi la jaar ba amna ay mbokk sax yo xamni jombul ki na ca ak ñom waye li nga bayi lu mata bayyi xel la moy audio mana video yi nga xamne mo waral ciow li da ci am bo xamne niñ ko dagge dañ ko dagg fekk dafa liqam ba nopi ka bëragut dan ni daqiqa booba nak la jàppoon ne kon duggagut ci bir julli dadi dem def lamay def daal di dellusiwaat daal di julli waye ñu andi ma benen video bo xamne fofu mom da kabar ba nek ci bir julli gi nak bi mu kabar bi mi la tangal fi daa tàmbali fatiha ji loolu du kabar na mom kon ma japp ne vidéo bi njëkkoon andi te fekk kabar agut booba dañ ko dag video bi mat moy bi nga xamne kabbar kabar gi mi ngi ci mu kabbar ba nopi door wax ne intaziru daqiqa intaziru daqiqa da di ñewat def ni ngeen ko ni ngeen ko waxee gi se ko léegi nag ci kaw loolu euh, lis docteur wax wane ne lii mu def nii yonent bi def na ko alayhi salaatu noonu ma ko leer la ci xadis boobu wax ne maanaam nekk na ci jàkk ji sàpp yi daw mu war mu dem bay waaj a kàbbar fàttali ne dafa yore dafa war a sangu daal di dem sangu dellusiwaat foofu jàpp naa ne mu ne su ko lëkkaleeg masala mii na qiyas ma al fariq la moy gan fariq bi moy bi dafa bi bi muy laata kàbbar la ko na yore janaba te bii ne daa kàbbar ba nekk biir julli ndax bu gut ko istikhlaf mun fa am ndax ba dañuy wax salatu istikhlaf imam bi day nek ci biir julli kum comme gut nak mu wutal mënu faa nekk euh, bu dee kii ci ni gisee man ci video bi ma setan na ba nek ci julli door a dem wat te yonent bi sallallahu alaihi wasallam Euh, ci ni ko docteur nekk leen nii booba kabaragut kabaru armal sàppee kii bi ñu laata kabar kabaru armal mu yëg loolu dem del siwaat loolu jàpp naa ne bu dee loolu moom jàpp ma ne kenn dana ci coow doonte nag ñi jàpp ci ne li mën naa nekk am na ay riwaayaat ndax xadis bi ñëw dafa rot ci ay riwaaya yu wute am na riwaaya boo xam ne boobu borom xam-xam dañ ci wute ndax kabar na ba noppi door a dagg jure wala kabaragut waaye riwaaya bi nga xam ne moo ñëw ci ne kabaragul moom day mel ne dëgër na lool par rapport boo ko lëkkee riwaaya bi ne daa ka booba dana kab riwaaya bi nga xam ne day wane ne booba kabaragut dugg ci julli ga booba dëgër na lool par rapport boo ko lëkkaleeg bi nga xam ne dana daa kabar ba noppi hmm, ci rijaal yi nekk fii ak rijaal yi nekk fii ci kaw loolu daal man li ma mën a wax daal te wax ko mooy wax dëgg wax dëgg wax dëgg lëkkale bi ñu lëkkale fii ñaari masal yi moom wax dëgg yàlla moom anduñu waaw bu ko defee la ci desaati mooy xëy naa jombul cadre xam-xam moom euh, ah ñi ma dégg ñuy wax ñëpp de la ñuy wax ci xam-xam lañ ko teg moom waaw ci xam-xam lañ ko teg tey lañ jàggi teg ci nag te daa bokk ci wax dëgg yàlla nitu xam-xam lu nit mag mag mag mag mag bu gisee lu mu xamul mu ne tekk laaj di xool boo xam lañ koy leeral dana convaincre wala déet. li ñu leeral fii nag man de personnellement bu doon man wax dëgg yàlla damay julli jiwaat moom lii convaincre ma bu ma ne ma nag tegu ma sama sama sama xel waaye ci njàngaleem borom xam laa ko teg la ci desaat mooy li ñu tuddee siyaat siyaasatu charia loolu noonu euh, moom baat boobu ak fan la de maanaam xam naa daal euh, ay mbir yu ñu xam ne daana am ci jamono yi saxaaba la jamono ñu fexe ba lëkkale ko ne day dugg siyaasatu charia ndax nizam bi daw ni ci Arabie Saoudite ak nizamul malaki ñom li ñuy li ñuy def ni ndax dañ koy duggal ci cadre ak siyaasatu charia bu fekke ne des na nangu baat bobu ndax imam mom liñ ci xam nañ koy tanne jangul nañ ko ci téere ba nopi dañ koy tànne wax dëgg yàlla jàng nañ ko ci téere bam leer wax deug yàlla comme jàng nañ ko ci téere bam leer nak euh ay atte wala ay loi yu daw ci birum rew su fekke loi da mëna forcer nit ñi tànnee ci ci sharia ah loolu di ngañ man man dana dem dana dem ba léegi lu luwaay yi sharia di doxal yépp de kon luwaay yi mën na ko forcer ba ba weñ ko te su booba nag mën na nekk ala xisaabi diin moom ala xisaabi diin ba tax na daal masala mi moom bu ma sañoon nii ci cheikh bi àddoo jombul du ci àddoo noonu du ci àddoo noonu man di bu ma jàkkaarloo nag xosey fii dinaa ko tarfu ay laaj yu bare bari ci li tax mu def loolu ndax dañuy jiital maanaam lu ay adduna yi nga xam ne ni dañ ko tëral rek daal ne masalan euh, ñoom ku ko def faw nii lañ koy doxale waaye maanaam fa fa kaawee na loi yi charia tëraloon ci lañ ci la ñu tànnee imam wala rek liñ jàngoon ci charia mooy dangay xëcc ndax masjidu rasul ak masjidu euh, ak yeneen jàkk yi ci des li xaj na al masajid as-salaas yi xam usaddu ilayha rihaal mooy ñetti jàkk yu waaye nag ci wàllu imaam ba fay jiite nag imaam ba fay jiite ku mënta xam rek lañ soxla ku mënta xam te jàpp naa ne ginnaaw wax nañ ni ñi topp ci ginnaawam ñu man ca xam ñu mën ca xam ñaga ca ah wax dëgg yàlla gisoon naa ne bu fekkoon ne nii mu dafa kàbbar ba noppi nii comme ni mu ñëwee ci biir vidéo ba dafa kàbbar ba noppi moom xëccoon ñenn daal ah, moom day mel ne loolu lañ jàngoon moom. Ah, ah, mbir la moo xam ne daal. Eh, من دي وحدي ودي وحدي مم هذا جالكم من قوم مم والله تعالى أعلم جرين جو السلام عليكم ورحمة الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكو الحق ثابت والباطل زاهق نيجي لنيجي بباخ باخ دي نيو إمام بام جاي دي نيو سرين علي بدر جاي سرين علي بدر دي Euh, tey ci suba ak léegi maa ngi diglu sa wax ji bëggoon cee sax indi sama ay xalaatin ak sama ay gisiin waaye waxtaan wi nga xam ne sëñ Modou Kama mi ngi ko doon def euh, ci sëriñ Abbas Sall te mu am solo lool loolu laa doon bañ indi ay perturbation ba tax euh, jotuma caa ñëw sëñ Modou Kama it di ko ñaanal di ñaanal sëñ Alioune Badara ak sëñ imam Pam Ndiaye ak mboolem ñi ci xam-xam ak borom xam-xam yi yàlla aar leen te sàmm leen ak mboolem ñi nga xam ne it ñooy nekk ci groupe bi di ittewoo xam-xam euh, sëñ Alioune Badara euh, sa kàddu yi day euh, jàpp naa ne tëj na wax ji tëj na wax ji wax dëgg yàlla kàddu la yi nga xam ne ba ma ko digloo mbégte mi ma àndal foo ko takk weesu na ko diglu naa ko sax nag lu mat ñaari yoon. Euh, ndax kàddu yi dal gi mu dal teg gi ne euh, wax ji rafet lool waaye ànd ak xam-xame lool nag wax ju xam-xame lool waaye tegginu lool nag wax dëgg yàllam wax dëgg yàllam kàddu yooyu daal euh, yéem na ma lool wax dëgg yàllam bi ñaan yàlla daal yàlla aar la te sàmm la wax dëgg yàllam kàddu yi daal daanaka manees naa wax ne daal daanaka tëj na wax ji moom daanaka mënees naa wax ne tënk na wax ji tënk na wax ji waaw tënk na wax ji ànd ak nag eh, yeneen yi ci mbokk yëpp indi ñoom sëñ Ibrahima ak ñëpp wax dëgg yàlla am na solo. Eh, xam naa ne nag eh, man moom ginnaaw bi nga xam ne sëñ Alioune Badara ak yeneen mbokk yi indi nañ ci wàllu fiq ci masala fiqhiya man xam naa ne ci fi may ñëwee rek. ndax loola lañ ca jot a wax euh, surtout sëñ ba dara wax jooja man daf ma convaincre daf ma iqnaa lool xëy na lee nag man fi ma ci waxee mooy ci yeneen kàddu yi nga xam ne ñëw na ci mbir mi wax dëgg yàlla man dama jàpp ne buñ ne diw sàngam nitu xam-xam la euh, xam-xam bokk na ci li koy wane mooy nit ki bu juumee mu nangu ne juum na bu xamul it mu nangu ne xamut bu aajowoo mu dem gëstu ji mu dem gëstu waaye wax dëgg yàlla buñ ne diw sàngam nitu xam-xam la ba pare it bu juumee du nangu ne juum na wala buñ ko jubbantee ci ay njuumte ña koy jubbanti ci njuumte yooya mu yëkkatiwaat yeneen kàddu yoo xam ne kàddu yi ŋàññi la ak xaste ko ci ñoom ndax kàddu yi nga xam ne moom lañ dégg nag ci wax ji wax dëgg yàlla ay kàddu la yoo xam ne jàpp naa ne euh, séentuwun mu jógee ci koo xam ne dañuy wax ne nitu xam-xam la bokk euh, ba ay mbooloo di ko bàyyi xel ak di ko topp wax dëgg yàllam waaw te nitu xam-xam it nag bu juumee daa war a xam ne dafa juum daa war a nangu ne dafa juum waaw daa war a nangu ne dafa juum nag wax dëgg yàllam loolu dafa am solo ci nitu xam-xam waaye nag man seetlu naa ci lu baree baree bari ci mbokk mii nga xam ne moom la ñuy wax nga xam ne moo indi wax ji ci ay njuumte yoo xam ne dana ko def ci wàllu xam-xam wax dëgg yaram bu ay mbokk jógee di ko ci jubbanti walla book ñu di ko ci euh, leeralal yenn leeral yi day mel ni ki day wëlbatiku yëkkatiwaat yeneen kàddu yoo xamante ne si kàddu yu ŋàññi la di ko jëmale ci ñoom wax dëgg yalam di wane ne ñoom daal amuñu xam-xam dañuy doog a tàmbali dañoo war a noppi dañoo war a def nangam loola nag dëgg-dëgg nag da nga ciy yëge ne day mel ni ki daal euh, nit ki dafa xaw a yëg boppam jàpp ni li ñu tuddee moom mooy mën monopole du savoir nga xam ne ixtikaar maarifi ilmi ci moom la nekk keneen ku dul moom rek maanaam ak gone nga ci wetam loolu na wax dëgg yàlla jàpp naa ne euh, nit koo xam ne dañu naan nitu xam-xam la nit koo xam ne dañu naan royukaay la war naa mën a daw yu mel noonu beneen bi mooy man ci biir wax ji wax dëgg yàlla par rapport ak lañ daan wax wala ak la ma daan dégg ku mel ni ki moom di ko wax euh, ak waxam jii tey dafa am ci man contradiction benn paradoxe boo xam ne foo ko takk weesu na ko wax dëgg yàlla am waaw ci li ma seet lu bokk foo ko takk weesu na ko ndax benn euh, maa ngi dégg ci biir kàddu yi muy wax ne muy wax ne ci wax yin rek ci maanaa bi euh, tekkiwul ne loo xamut wala loo gisut euh, loola amut maanaam loola da ngaa war a dem laajte balaa ngay weddi maanaam loo gisut wala loo xamut waroo tëb tëb di ko weddi waaye da ngaa war a dem gëstu da ngaa war a dem laaj euh, loolu day wax dëgg yàlla man euh, bu ko waxee ak ni ma gisee mbooloo yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom ak nañuy doxee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci geneen wàll ci wàll tasawuf euh, wax ji dana ma jaaxal dana xoromu ci man lool ndax day mel ni ki ñoom la nga xam ne moom la nitu tasawuf fii di wax ci wàllu xam-xam te xamuñu ko wala boog la nga xamante ne si dañu koy def te xëy na lay ñoom mosuñu koo gis yooyu la ñuy tëb tëb di leen ko weddil yooyu lañuy ñuy tëb tëb di leen ko weddil kon day day mel ni ki daal valable na fële waaye bu fekkee ci wàllam la moom ak ñi bokkak moom kuréel moom ak boroom xam-xam yi nga xam ne jàpp na ne ay royukaay la ci ñoom ñooñu moom valable ci ñoom waaye bu fekkee nitu tasawuf fii la moom euh, lu ñu wax te xamoo ko lu ñuy jëf te gisoo ko wala àggoo ca bu la neexee weddil waaye fee nag moom bul weddi loolu daal beneen mbir la ci man beneen bi ci tege mooy damaa gis mu def loo xam ne ñoom dañ ko daan dàq ci xam-xam ndax dama gis bi muy melal al imaamul xoseyfi euh, aliyun xoseyfi yal na yàlla sàmm ko te euh, te te mu nekk ku ñu wekk ku ñu bàyyi xel ci am njàngam ak ci xam-xamam daf koo melal ne jaamukatu yàlla la borom xam-xam la ku maandu la ku nangam ku nangam yàgg naa jiite ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu matul ñeent fukki at jege na ko ak yu mel noonu daal nag ku mel noonu nag kon du ko jóg rek wala nangam ak nangam daal di eh, critiquer ay jëfam wala yu mel noonu pourtant day melokaan yooyu man jàpp naa ne nag eh, wax dëgg yàlla mu melal al imaamul fii wala aliyul fii eh, melokaan yu ko ëpp solo yu ko ëpp doole nekk na ci sunu ay kilifa ci réew mi wax dëgg yàlla nekk na ko ci ay nitu tasawuf fii nekk na ci Serigne Touba melokaan yooyu nekk na ci Seyd Alxaaji Malik nekk na ci diw sàngam nekk na ci diw sàngam ci Cheikh Omar Fouti nekk na ci diw sàngam ak sàngam ñu xam leen ci jaamu yàlla xam leen ci maandu xam leen ci ragal yàlla xam leen ci xam-xam xam leen ci nangam ci nangam ci nangam te pourtant euh, seeni seeni waxiin ak seeni jëfin moom mii da koy weddi moom ak ñu mel ni ki moom day weddi yooya di wax ne ñoom seen waxiin yooya ak seen jëfin yooya dëpp wut ak sunna waaw ba bal ba bind ci ab téere sax moom ci boppam waaw ba bind ci ab téere waaw kon bu ñëwee fii la mu doon dàq fële mu bëgg koo ñëw saxal ko ci al kon dal man lima bëgg wax moy euh ndax Serigne Touba ci bopam dafa nekkutoon ku maandu dafa nekkutoon ku ragal yalla dafa nekkutoon nangam ak nangam ndax al Alxaaji malik ndax Cheikh Amar fouti ndax di sàngam na ndax ñooñu yooyu yëpp ak melokaan yu ko ëpp solo dajé won na ci ñoom té téwut euh, mom ci bopam ak mbolo yi ànd ak moom ñi ngi yëkëti ay cadeau yu doy war diko tek ci ñooñu wax deug yàllam waaw man dal wax deug yàllam euh, mbir dal jaxaso na ci man man dal Euh, gis naa ne daal nit kuy wax ci xam-xam jàpp naa ne nag ak dëggu aku maandu te mën naa mën na am na solo ndax bu fekkee lu jógee ci ñeneen nga man koo layal di ko jéem a wutal ay bunt ak nangam ak nangam lum la lum la kute te bu fekkee loo xamante ni si daa jógee ci ñeneen ñoo xamante ni si dañoo bokk ak yow réew mi nga jànge ci ñoom xame ci ñoom loola nga jël ko sànni ko fële wax dëgg yàlla nag loolu man contradiction la ci man te daal ci jeex jeexital daal borom xam-xam buñ koy tuddee borom xam-xam dëgg-dëgg jàpp naa ne nag dara ëpp ci solo lu mu xamut mu ne xaw ma laa adri loo xam ne njuumte la mu nangu ne loolu njuumte la nag wax dëgg yàlla am te bañ di walbatikuwaat di yëkkati yeneen kàddu nag di ko teg ci nit ñi ndax xam-xam amul mag amul gone nit mu mën di toll ci xam-xam ak fu mu mën di toll ci mbaax ci ragal yàlla jàpp naa ne bu defee loo xam ne dëppwut a xam-xam loolu dañu naan dëppwut a xam-xam nag wax dëgg yàlla té mom lool lay faral di jàngale lool lay faral di wax nak kon nak bu ñëwé wax lénen nak lool dana ma jàng té benen bi moy uslub bi mu waxé day uslub la bo xamné wuté na lool ak li nga xamné moy mooy jàngal yinu alquran ci nit ki ni mu wara waxé ak ki mu wutél ba ci ki mu bokkolul diiné wala tujaadilu ahla alkitaabi illa billati hiya ahsan waaw ba ci ki nga xamné sax dafa ñëw di la ŋàññi wala muy dal ci sa kaw wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama qaalu salaama waaw waaye it uslub bi wuute na dëgg-dëgg nag ak uslubu koo xam ne dafay woote jëme ci yàlla udu ila sabili rabbika bilxikmati walmawizati alxasana kon uslub bi moom wax dëgg yàllam jàpp naa ne warutoon a demee nii maanaam jëmmi wax ji waxin ji yonent yàlla muhammad xul euh, man yarzuqukum min alsamai wal ardi xulillah wa inna aw iyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin donte moo nekk ci dëgg waaye gis nga na mu waxee ñoom la shakk ci ne ñaari kuréel yi am na ku ci nekk ci dëgg am na ku ci nekk ci caaxaan nga xam ne taxawul sax ne leen rawatina nag koo xam ne ci ay masala xam-xam ngeen ñi wax yoo xam ne dala cay jubbanti wax dëgg yaram daal jàpp naa ne kàddu yi ak waxin wi daal man moom dëgg dëgg nag Euh, léeg-léeg nag euh, mu mel ni ki daal euh, jar naa jàngataat jar naa xoolaat ci yenn mbir wax dëgg yàlla ñu ngi man parce que li tax ma mu yéem ma maanaam ci ñàkk maandu gi nga xam ne mooy feeñ ci lépp loo xam ne moom lay def maanaam loolu ñuy woowee Ismaïla Madior Fall di ko woowee maanaam le terre le terre maanaam de la constitution mooy mooy mooy mooy bi nga xam ni mooy jël constitution bi nu nu nu neex Macky Sall rek mu mu ñu ñaar constitution bi pour dëppale ko bëgg-bëgg Macky Sall maanaam loolu laa gis ci Ahmed Lo moom ci maanaam taxasub gi nga xam ni moom lay def saa yu ne ci li nga xam ni maanaam mooy mazhabam wala waa mazhabam mooy koo xam ni maanaam lii ñuy wax alkitab wa sunna lépp loo xam ni maanaam lu mazhabam def la te muy loo xam ne lu dëpp lu dëppoowut ak kitaab la wa sunna da gis lu man ci fexee wiñaar nusuus yi ba jël déggin wa dëppale koog loolu nga xam ne moom lañ def ngir rafetalee ko lañ def dina ko def waaye lépp lu mu bëgg ñaawal lu mu bëgg a ñaawal wala mu bëgg koo maanaam xajamal nga xam dafa dëppoowut ak mazhabam lu mu mën a def tamit ba tey ci weñ weña weñar li nga xamni moy nusus yi wala waxal borom xam-xam lu waxul wala joxe ay fausse nouvelle manam di wax ni manam li ëpp ci borom xam-xam yi nangam lañ wax lu mu mën ci loolu ci tadlis dana ko def ngir manam dajji loolu te li may wax ni lu ci ne manam dafa am ay firnde fe li nga xamni moy euh teud gënt gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam maanaam dàq gi mu koy dàq maanaam jaral na ko mu mu mu mu dàq xadis boo xam ne maanaam daa sax ci euh, ci Buxaari yi waaye tey jii lépp loo xam ne tamit maanaam bëgg na koo rafetal nga xam ne maanaam moom mësa ba ma ko def te dëppoo wut ak sunna comme mel ni maanaam lii nga xam ne mooy xadis bi nga xam ne moom la jël di ko wiñaar donte man damaa jàpp ni moom euh, tontu bi dafa mënoon a simple ndax ku mel ni al euh, al imam Muhammadun al-Hudayfi loolu mu def daa dëppoog seen ngir boo xoolee xanaa bi lay yaakaar naa bi biñ ko fi njëkkee wàccee ki nga xam ne mooy imaam Pam Ndiaye wàcce woon na fi benn nast boo xam ne day wane ni xanaa bi lay ñoom liñ gëm mooy imaam bu nekkee ci biir julli ba njàppam toj maanaam bu boobaa du wóotal kenn day dagg julli ga dem jàpp jiwaat loolu ñoom xanaa bi lay moom lañ moom lañ moom lañ gëm léegi loolu day mel ni loolu nga xam ne moom la xanaa bi lay gëm Muhammadun al-Hudayfi loolu la def. te moom xanaa maanaam ci xanaa bi lay la bokk donc loolu kon bu doon moom maam fekk gi muy wootee di wane ni moom moom mooy moom moo bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ponkal ñi ñeneen ñi ay cuuj lañ maanaam bu doon loolu muy wax maanaam lu lu lu wér rek da daal di gis ne bi laaj bi ñëwee ci moom rek tontu lii mu jeex du fi nekk di wëri di wut ay lay yu mu koy layal ci naan am na ku ma laaj koo xam nee na keroog bi muy am kenn koo xam ni yàlla dowaloon na nga doon imaam yi nga xam dañ leen a nga nekkoon fa amul man loolu gëwuma ko maanaam man damaa bokk ci ñi nga xam ni man Ahmed loolu lépp lu mu wax loo xam ne luy défendre mazhabam la wala lu koy lu koy lu koy wutal lay maanaam man damaa jàpp ni li ci ëpp bu loo bu bu indiwut loo xam ne maanaam lu mën a loo palpable man man du bokk ci ñu koy gëm ndax man moom damaa jàpp ni li muy wax lu dul dëgg moo ëpp li muy wax dëgg ci wàllu xam maanaam bu jëmee ci wàllu ay ay wala yu demee nii li muy wax lu dul dëgg moo ëpp li muy wax dëgg donc wax dëgg yàlla euh, laaj bi moom ci wàllu loolu xosay fii defoon dafa yomboon lool ci nga mu waxoon ne rek xanaa bile yi lu mel noonu lañ gëm mooy ñoom jàpp ni imaam bu amee ngant lu mel ni ay toj yooyu toj leeg yooyu maanaam war naa war naa jiital keneen waaye dafa war a dagg julli gi maanaam dem jàpp jiwaat bu ñëwaatee maanaam ci at loolu nas bi ñëwoon na muy nas bu leer naaj ñi mu wóor ma ne lii bi bi laaj bi doog ñëw bu doon xam na ko wala mu gisoon ko wëri coono yu metti yëpp du ko ci def waaye maanaam maal asaf nit moom bu yàlla doogalee nga nga nga contre ay nit ñu bax rek di dox ci par parlo rek c'est yalla comme niko ko waxe rawante na ngay mer manam day gëna a lëndëmal sa xel te moom dafa maan biru ko xamni manam téré yi mom daanaka mom wax dëgg euh lim koy yër bari wu xeyna dama dama japp ni da ci ñoo nga xamni internet bi nga xamni mom lay wax naan ñi nekk ci internet bi mom mi ci ñi nekk ci internet bi nga xamni buñu jëlé mourid li murid di wax naan manam buñ fi buñ fi jëlé won internet boo yeexee dootul wax ci wallaahul mustaan salaamaaleykum wa wa barakaatu waa alxaqu sàpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di nuyu Ibrahima Ndiaye mi doon def commentaire yi ci waxu sëñ Alioune Badara Ndiaye bi tam loon def moom itamit commentaire ci waxu Seexina Docteur ci tontu boobu mu tontuwaat ci fatwa boobu nga xam ne wala boog jàngale boobu nga xamoon na defoon na ko te yàlla defalatuloon ko ci tawfiq mu ñëw nag di wane na nit ñi ñoo jàngut te bëgg di wax ala kullin comme ni ko sëñ Ibrahima waxee mooy ne lu doon simple la su fekkoon ne bi muy wax e, ñëwoon na ci xel mi ne mashabu alxanbali mm, ñoom maye nañu imam bi su fekkee ne dafa tojle mu dem beesal njàpp ñëw continuer julli ga sof ko fam ko sofoon nit ñi xaar ko wala su fekkee ne dafa taxaw te commencé bu ñëwee kàbbar kàbbar armaar comme ni imam bi def loolu su fekkoon ne mi ngi woon ci bopp bi ni koon koy wax ni loolu rek lay wax bu ko defee leeral ak na am nañu jortu ne eh, problème mu imaam moo fa nekkutoon waaye du toon loolu ndax loolu jamtal bu sore sore sore la mooy ne kenn ku xam koo xam ne idaari yan mënu faa jiite mu nekku fa loolu eh, prétexte la bu sore sore sore ndax ndaxit jullit ngoon la timis la walla gaxe la heure boobu <laughs> ña fa war a teew ñu fa war a ñoo xam ne rasmiyan war nañ faa jiite war na war na am waaye li leer mooy loolu taxutoon li taxoon mooy ne seen masab may nañu loolu loolu rek la xam waaye nag lam ca laxas di ko ci waxaat di wax ni ñu jàngi rek nangam yooyu moom euh, beneen affaire la mbirum doomu aadama la te jàng moom ñëpp la war euh, kay door a commencé kay def fatwa bañ tegal ko podium muy def fatwa ñoom ñëpp war a jàng taxit kooku sax moom la war gëstu war a gën a war ndax lu mu wax ñu def ko téere waaw ko defee nag lam ca ràbb yooyu yëpp waxu doomu aadama la ñoo <clears throat> jéggal ko waaw bu ko defee nag mbir mi jël ko jëfu imaam bi aj ko ci siyaasa charia ya kooku foofu la foofu la njuunte bi nekk maanaam imaam bi xukkumu charia la war a war lii de àttee charia ci mbir mi waaye imaam du teg lii di siyaasa charia <clears throat> mën na wëyal la ñuy tuddee xukkumu bi kat lii la wax bu fi kenn koo xam na nii rasmiyan officiellement waroo fee jiite imaam bi bu fi nekkut doo jiital keneen da ngay dem ñëw fekkee loolu lañ bind ah moom mu tënku ci ndax it sañ sañ sañuy ta bañ waaye mbir ma du loolu mbir ma du loolu mbiru ma hukkumu shari'i la doxal boo xam ne mazhabam may na ko ko waaw ko defee xam ni mu ko waxee eh, lam ca ràbbaat te nit ñi jàngee nangam nangam yépp mbiru doomu aadama Uh, siyaasa sariya xaakim moo koy teg gis na situation bi kat lii la laaj donte lee moo gënoon waaye situation bi actuellement li ñu toll nii lii lii la laaj mu tëral loolu Seydina Omar comme na nga ko defee woon ca bu nit ñu commencé di caaxaane sëy yi ku tëb tëb rek na fa fase naa la mu def ko na fa ko fase sa jabar ñetti yoon ci benn kii moom mu def ko muy benn fas masalan ngir ngir yar nit ñi xaamul majaati ñëw te mu ne ku sàcc ñu dagg sa loxo léegi aj aj at bi da koy da koy da koy aj du question ne dafay wuuteeg yàlla wante situation bi moo nu demee ci fuqaha yu ñu ne si lu ñu tuddee ko loolu siyaasa sariya waaye nag bu mbir ma dañee dafay dañ Seydina Omar am na ñu laan jox cër ñu ràññee ci Euh, euh, li ñuy tuddee alal ji ñuy tuddee li ñuy jox euh, cër bi ñuy jox ñi nga xam ne ñoo tuddee ñi ñuy nooyal seen xol ñuy tàpp seen xol ci lislaam muy mu àllafatu xulóob bi muy ay nit ñoo xam ne bu ñuy kiyaar rek jox leen Seydina Omar am na état boo xam ne dafa da koo da koo dindi ci ñoom ne la non mbir mi du yéen dañ leen ko war a jox rek toujours tollootu leen foofu seen xol tàppeeku na ci lislaam doy na waaw bu defee du question dafa neenal xàtteb lislam wante gis na ne la waroon loolu amatu fa léegi mu dindi ko siyaasa shar'iyya léegi nag ndax imaam bi moom xukumu siyaasa shar'iyya la doxal déedéet siyaasa shar'iyya xaakim moo koy tëral moom li muy mën a du doxal mooy mooy xukumu shar'i wala xukumul idaari dara amu fa loolu moom xukumu shar'i la doon doxal wante fam ko aj atte ba na kii siyaasi la doon doxal déedéet waaw ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi balu àq ñëpp yal na yàlla dimbali ñëpp yal na yàlla sàmm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah xanaa mu amaat beneen loo waxoon ca cat la na sëñ murit euh, Gajaga moo ko wax mooy ne bëri na si ñoo xam ne di def fatwa bu fi internet jógoon dootuñ defati fatwa wante mm, man dama uuteeg nit ñi ci internet dëgg la lépp loo looy wax ci côté xam-xam war nga ko def taw tawsiq eh, ba mu dëgër xam na nii la ko yoon waxee waaye internet téere la rek kàggu la rek fi internet nekkoon dootu defati fatwa mooy bu fi téere yi nekkutoon dootu defati fatwa rek internet téere la rek ku ku jàngut bu ubbee téere du ci xam dara internet it ku jàngut <coughs> internet doo dem mu lay waxal te fekk jàngloo ku jàng moo fay dem liir mën a xam man a comprendre mu mel ni téere bi rek nga ne téere bi bu fi nekkutoon nekkoon diw du mën a du du du mën a firi waaw ba tax na du képp ku dem internet mën a def fatwa it ñu bàyyi ñu bàyyi xel loolu macha allah ñu ngi nuyu ñëpp ñu baal àq ñëpp.